ñu déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant bu baax a al mudir Oustaz Ndaw ci ubbeegu am solo gi nga xamante ne bi def na ko euh, comme ni ko waxee rek ñu ngi tey ci sunu juróom-benneelu bis ci aljaamia sayfiya bi nga xam ne dañ fiy faral di ko def waxtu wii nii ci barab yii nii di fi waxtaane tamit ay tomb yu wuute tomb yoo xam ne day aju ci social tomb yoo xam ne day aju ci koom-koom day aju ci yoon wi ay tomb yu wuute lañ fiy faral di jëfandikoo su ko defee tey jii ñu war a jël tomb boo xam ne ni ko sas Ndaw waxee mooy thème d'actualité la muy tomb boo xamante ne bi dafa dëppoo ak jamono dañ koy dund fi ñu toll nii muy jafe-jafe yële nga xamante ne moom moo am diggante Russie ak Ukraine muy jafe-jafe yoo xam ne dëgg la ci ñaari réew ñoo ko séq ñaari réew ñoo ko seq moom la ñuy tudd toujours waaye ca dëgg-dëgg yemul ci ñaari réew yooyu kese ndax yaakaar naa bu yemoon ci ñaari réew yooyu kese kese mën naa am solo si tax solo si tax ñu koy waxtaane tey jii nii du ko am tey waaye ni ngeen ko xamee àdduna bi dañuy dund ci li ñu tuddee mondialisation muy benn ñu mel na ñun ñëpp donte ko àdduna bi dafa yaatoog lépp waaye day mel dañuy dund ci benn barab nga xam ne lu tëgg fële rek daanaka day awu ci fa ca des waaye tamit ñu nekk ci àdduna boo xamante ne bi tamit mën nañ ne kenn ku ne da koo bëgg yilif ay réew yu am doole ay ay kilifa yu am doole kenn ku ne bëgg a teg sa loxo nag ci doxalinu àdduna bi ndax xam ngeen doomu aadama dafa doon koo xam ne dafa ñu ko mën a waxee dafa anaaniya boppam da koo gën a lépp loolu nag moo tax saa bu ñu waxee guerre balee ca Russie du nekk nekk na rek russ Russie ci boppam rek ak kam ko séqal rek moom moo ñu intéressé waaye la nga xamante ne moom mooy bàyyi koo ci fi ay waaye ak la ko wër yépp loolu su ma suñu ñëpp yaakaar naa kenn nit du xëy fi ñu toll ni ba jant bi sox te du dégg loolu ci baatam ndax lu am lu ne rek lu am lu ne même àdduna bi jafe-jafe yi mu nekk fi ñu toll ci wàllu koom-koom ci wàllu yu baree bare koo wax la muy wax rek mooy guerre ba fële moom moo waral lii moom waral nangam boo pare ñu bari dañ koy taafantoo fi ñu toll nii ah yaakaar naa am na ay borom kër yu mel ne xat fàkk sax mën nañoo seen soxna mën na leen laaj dara sax ñu taafantaloo guerre ba la ci Russie ngir lan rek ngir xëy na asaar yi nga xam ne ñu koy dund ba fii ci sunu biir réew mi waaye ak feneen ak feneen ñu war ci ànd nag ak euh, Oustaz Mouhamed njaay di koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci gëstoom ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam mu war a ñëw nag ànd ak ñun ci thème bu yaatu bii nii su ko defee Oustaz dana ànd ak ñun ci tomb yi nii euh, ci tomb yi rek da ciy feeñ li ma waxoon ne guerre ba ñaari réew ko sekk waaye mel na ne fu bare bare bare laal na fa kon oustaz danañu xamal Russie doole yi nga xamante ne bi moom da koo am ni maanaam doole ji mu am dana ñu indil ay leeral ci ni nga xamante ne bi noonu la Russie màggee ba toll fi mu toll nii tey su ci noppee danañu leeral yi tamit ndax lu mel noonu moo am ci Chine ndax bu ñu dee wax fi ñu toll nii ci koom-koom yi nga xamante ni ci puissance économique yi ci àdduna bi fi ñu nii da ngay tudd siin mooy tamit danañu leeralal doole ñi nga xamante ni tamit Chine am na ko tamit ah ba fi ñu toll nii fan la jaar waaye tamit Europe ndax ñaari réew yooyu di xeex ci Europe lañ nekk ah Europe charqiya waaye danañu leeral tamit jafe-jafe yu wuute yi nga xamante ne bi da am na biir Europe ci boppam Europe ci bopp biiram am na ay jafe-jafe yoo xamante ne bii noonu mooy tamit jaadu nañu xam ko euh, wilaayatul muttahida al ya Amérique mi nga xamante ne bi jàpp nañ ne mën nañ ko tuddee metre du jeu mooy tamit mu am wàll lool ci yëf yi te jamono yi ñu nii tamit wala mu am ay jafe-jafe mooy tamit yoo xamante ne bi ustaas bëgg nañu ko leeral su ko defee mu tomb mujj bi nag mu indil ñu ay problématique yoo xamante ne moom rek ci àdduna bi yëpp la su defee yooyu mooy tomb yi nga xamante ne bi incha allah moom la Oustaz Ndiaye war a leeral tey ci jataay bi su defee ñu may ko nopp bu baax a baax rek ngir bañ a guddal ñu jox ko kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa barab bi kilifa ak université Cheikh Ahmad Bamba sëriñ Maam Mor Mbàkke Murtada di ci teg kilifa institut al azhar yi muassasatul azhar islamiya di sëriñ saaliw mbàkke murtada di nuyu daairatu ansaaru diin al islaami ci njiital cheikh mbàkke kan di nuyu ki nga xam ne ni moom moo jiite jaamia sayfi bi mooy université bi di oustaz ibrahima gueye di leen nuyu yéen ñépp itam ci teew gi ngeen teew ci barab bu sell bii ngir xam-xam thème bii nga xam ne moom lañ tànn nag te moom mooy alxarbu ruusiya al ukraniya wa taxayuraat fi saaxat dawliya wala duwaliya guerre bi nga xam ne dafa am diggante Russie ak Ukraine ak coppiku yi nga xam ne nii mën na koo indi ci doxinu àdduna bi yaakaar naa loolu mooy thème bi thème boobu nag ñun dañ ci sawar a wax lool ndax actualité la waaye nag dafa concerné Sénégal trop trop trop trop sax xëy na fa muy xewee sori na waaye ci kanam tuuti danañ gis ay njeexital yoo xam ne nii daf ñuy engagé directement ñun Sénégal te loolu dana feeñ ci réewu Mali mii nga xam ne nii moo dend ak ñun ak réewum Algérie bi nga xam ne nii moo frontière ak Mali Algérie ak Mali dañoo am relation yu dëgër seen diggante ak Russie am relation yu dëgër seen diggante ak Chine danañ ci ñëwaat ci kanam waaye rek loolu nga xam ne moom la ñu wax ni moom mooy guerre bu xew diggante Russie ak Ukraine yi en tout cas ñun bu bëggee neutre bu fekkee Russiens yi ñoom ñoom tuddeewuñ ko guerre ñoom dañ ni opération militaire la ñuy def ci benn région bu ñu naan Donbass ca Ukraine kon eggagul ci niveau guerre pour ñoom bu dee tubaab yi nag média international ñoom guerre lañ ko tudde waaye man su ma ko doon tudde man dama naan guerre bu réewi tubaab yi di def contre Russie te jaare ko ci Ukraine guerre boo xam ne nii réewi tubaab yi ñu ngi koy def contre Russie waaye nag dañ koy jaare ci réewu Ukraine man noonu laa koy tuddee guerre boobu nag ñun buñ ci bëggee waxtaan dañuy commencé ci Amérique jeexalee ci Amérique dañuy commencé ci Amérique jeexalee ci Amérique ndax euh, réewu Amérique Amérique tey mooy réew bi ëpp doole ci àdduna bi réew la boo xam ne tamit ab empire la ab imbratur la daanaka mën nga ne 1990 ba léegi ñoo yilif àdduna bi boobaak léegi dugg na fanweeri at te lu jiitu sax ñoom ñoo yilifoon waaye dafa am ku ñu fi nekkaloon mooy Union soviétique seen kilifteef googu nag day feeñ ci wàllu économie di feeñ ci wàllu politique di di feeñ ci wàllu social di feeñ ci wàllu culture ñu utal ko ay mécanismes yu leer yoo xam ne nii maanaam utal ko ay jumtuwaay yoo xam ne nii mooy tax kilifteef googu man di continuer ndax bu dee ci wàllu koom-koom seen xaalis moo yilif àdduna bi mooy dollar bi bu dee ci wàllu politique seen doxin ci wàllu politique moom la àdduna bi yëpp di doxe ndax ñoom dañuy woote ci démocratie bu dee ci wàllu ni doomu aadama yi ñu ngi woote droit de l'homme ak liberté di woote ay valeurs yoo xam ne nii jàpp nañ ne àdduna bi yëpp dañoo war a tënku ci valeurs yooyu ànd ceeg ñoom bokk ceeg ñoom xalaat su ko defee ñu mën leen a mooy woote gi ñuy woote ci affaire droit de l'homme droit de la femme ak liberté ak ba ci góor jigéen wala yu demee noonu kon ñuy réew moo xam ne nii dañoo am doole am doole gi ñu am doole yaakaar naa taarix mës a enregistré doole ji toll noonu ndax tey ji bu ñu xooleen ci côté économie rek Amérique tey seen PIB maanaam seen dépense par at vingt et mille milliards la ci xaalis vingt et mille milliards vingt et mille milliards yooyu di seen PIB boo boole woon Union européenne yépp matut loolu union européenne yëpp réew Europe yëpp boo boole woon seen PIB dix-neuf mille milliards la maanaam Amérique mooy leen ëppoon économie boo leen boole. ñaareelu réew bi ëpp doole ci économie après Amérique mooy Chine Chine quatorze mille milliards la kon loolu dafay wane dooleem ci wàllu koom-koom léegi nag loolu nga xam ne nii moom la Amérique di doxee di ko woote. ñu tuddee ko capitalisme tuddee ko libéralisme tuddee ko droit de l'homme tuddee ko liberté ak yeneen ak yeneen moo xam ñoom gëmuñu ko moo xam gëm nañ ko waaye moom lañuy tënk àdduna bi ngir mën a yilif àdduna bi loolu mu ngi dox bu fekkee lu jëm ci wàllu réew yi nga xam ne nii ñooy réewi àdduna bi itam dañ leen a tënk ci ay mbootaay mbootaay yooyu yëpp mbootaay goo ci dem dañuy gis ne Amérique moo yilif mbootaay googa bi ci jiitu mooy Nations Unies Conseil de sécurité Banque mondiale Fonds monétaire international ba ci mbootaay yi nga xam ne sax dafa jóg ngir wàllu défense bi ci féete kaw mooy OTAN OTAN Amérique moo ko sos moo ko yilif kon loolu yëpp ay mécanisme la yoo xam Amérique da koo teg ngir yilif waaye nag dañoo gis ni depuis année 2000 ba léegi Amérique dafa commencé deltu gannaaw deltu gannaaw bi dafay feeñ ci yu bari ba tey mooy yi ñu tudd léegi ndax bu fekkee ci wàllu économie la tey Amérique mooy réew moo xam ne nii ñu ngi dépensé vingt et mille milliards am boru trente mille milliards ñu ngi dépensé vingt mille vingt vingt et mille milliards am boru lan trente mille milliards mu ngi mel ni rek nga dem génn kër goo xam ne nii boroom kër ga mu ngi fay yeeku ñaar fukki junni am boru fanweeri junni te xanaa loolu du avancement. boo ko tëkkalee ak Chine mi mu dendal Chine ñu ngi am quatorze mille milliards seen dépense seen seen bor weesuwut deux mille milliards maanaam kon moom mu ngi fayeeku fukki junne ak ñeent boru ñaari junni la am yaa xam naa kooku moo gën a sedd bopp kon Amérique am nañ problème économie problème économie boobu année 2006 jàpp 2009 la gën a leer mooy jamono jamono yi nga xam ne ci la banque yu bari ci Amérique fayitee ba tëj société yu bari daanu ñu gis ni xaalisu dollar bi bari na ci loo xam ne nii tasaare nañ ko ci marché bi te amut lu ko garanti loolu yépp ngir mën a suqali seen koom-koom bi ñu demee ba atul année 2017 2016 2017 jàmm jàpp 2018 pétrole bi daanu ñu am problème bi ñu duggee 2019 Covid 19 ñëw ñu amaat problème léegi Covid 19 jeex na ñu duggaat ci beneen problème mooy ren problème mu bi loolu yëpp dafay feeñ ci économie bu Amérique ànd ak loolu jamono yi nga xame ne Amérique mu ngi deltu gannaaw ci wàllu économie ñu gis ay réew yoo xam ne nii ñu ngi avancé ci wàllu économie bu ñu jëlee misaal réewum Russie Russie union soviétique la doonoon union soviétique moo sos woon année 1917 daanu année 1990 réewum Russie remplacé ko Russie boobu diggante 1990 ba 2000 dafa faible jamonoy Boris Yeltsin dafa faible daanaka réewi tubaab yépp dañ leen a yërëmoon xeeb leen di leen tëkkale ak réewum Espagne ci ñàkk doole ak ñàkk benn influence mais biñ demee ba année 2000 ñu gis ki ko jiite Vladimir Poutine diggante année 2000 jàpp 2010 coppiku yu bari am ñu gis ni réew moomu mu ngi avancé avancement boobu tamit ci côté yépp la ndax bu dee ci côté économie tey Russie seen diggante ak union européenne rek commerce bi egg na ci trois cent milliards de dollars diggante Russie ak union européenne seen commerce réew bi ëpp solo ci union européenne bi mooy réewu Allemagne moo fa réew mooy réew bu fa ëpp doole ci wàllu économie moom mooy client bi gën a mag pour Russie seen commerce ëpp na vingt vingt milliards de dollars beneen bi ci des moom mooy réewu Russie boobu noonu. dañoo am ay position yoo xam ne nii arrangé wut Amérique ci ay xew-xew yu bari yoo xam ne nii xew na depuis 2000 ba léegi jàpp 2020 xew-xew yooyu biñ ci gën a mën a ràññeeku mënees na koo commencé ci xew-xew bi nga xam ne moo am siri réewum siri jamono yi nga xamee ne nii réewi arab yi ñu ngi commencé di am ay jafe-jafe di daaneel seen gouvernement yi ca Tunisie ak Égypte ak Yémen ak Libye jamono yooyu lu mel noonu moo xewoon réewu Syrie waaye gis nañ ne réewu Syrie gouvernement ba fa nekkoon ba léegi daanuwut te la tax daanuwut mooy bi tubaab yi defee seen pexe diggante Amérique ak France ak Israël ñu def seeni pexe ngir daaneel gouvernement ba russiens yi ñoo ko yóbbu seen arme mën naa ni 2011 ba bisu tey bii Syrie ñu ngi xeex li tax gouvernement ba daan wut Russie la kon foofu tubaab yi mere nañ fi Russie beneen bi ci des mooy Iran réewum Iran depuis 1979 ba léegi ba ko imaam Khomeini jëlee taxawal fa état islamique ba bisu tey bii dañ leen a embargo kenn du jënd ci ñoom kenn du jaay ci ñoom kenn du jëflante ak ñoom yaakaar naa ku juddoon 1979 ba léegi am nga ñeent fukki at boo gisee réew ma daanuwut ba léegi itam loxol Russie da caa nekk Iran moomu itam dafa am influence bu am doole boo xam ne ni daf ko am ci biir réewi arab yi ca Yaman ak ca Bahreïn ak ca Irak ku ne xam na diggante États-Unis ak Iran ku ne xam na diggante Iran ak Israël waaye boo gisee mën a mën ñu dara Iran ba léegi Russie moo tax kon foofu tamit beneen la boo xam ne nii états uni daf koy jàppal Russie bu ñu jógee ci problème boobu année 2016 ci réewum turki benn coup am na fa boo xam ne ni Rajab Tayyip ordogan lañu ñu kompaloo ngir daaneel ko loxoy Amérique nga ca loxo loxoy Allemagne nga ca loxo yi France nga ca loxo yi sax réewi arab yi fu mel ni Arabie Saoudi ak Égypte ñu nga ca li tax Rajab Tayyip Erdogan daanuwut renseignement yi nga xam ne russiens yi ñoo leen ko doon jox ñoo dimbali ba kenn jàpp ko bi nga xamee ne nii coup boobu jàll turkiyen yi am jafe-jafe ci seen biir bokk na ci li njëkk a def moom mooy lu jëm ci wàllu ngànnaay moom dootu yemati ci ngànnaayu Amérique kese di ko jënd ndax dañoo seetlu ni réew yi nga xam ne nii ñooy jëflanteek ak Amérique ci wàllu ngànnaay am na ci benn interview bu ma seetaan barki démb boo xam ne nii euh, euh, président bu Malaisie ex président bu Malaisie moo ko doon wax nee na euh, ñoom réewu Malaisie dañoo dem ba bëgg yeesal seeni ngànnaay daal di dem ci Amérique daal di fay jënd ay avion de chasse f yu bees ñu former benn équipe boo xam ne nii li ko tax a jóg moom mooy jéem a analyser avion yooyu xool naka la ñuy def ba mën koo jàngat ngir secret yi ci nekk ñu xam ko ak itam mën koo améliorer mais liñ ci njëkk a seetlu ndekete ñoom jënd nañ avion yi jënd nañ ngànnaay mais ñoom contrôlé wuñ ko ndekete Amérique bu la jaayee ay ngànnaay ba pare moo koy contrôlé lépp loo xam ne def nga ko ci avion bi suba ngoon avion bi day envoyé rapport bi mu dem. ñi dem ba gis ni maanaam tey avion bi ak missile bi muy àndal tey boo ko joxoon commande pour mu dóor fenn ñoom mën nañ koo reprogrammer réorienter ko au lieu que mu dóor fa mu war a jëm mais yow mi ko yónni yow lay dóor si loolu turkiyen yi ñoom 2016 lañ ko xam ndax gis nañ ni coup d'état boobu nga xam ne moo doon am Turquie armée bi ko doon def dañoo jëfandikoo avion de chasse F-16 ak F-22 loolu kon bokk na jubóodikoo gi am diggante euh, réewum Turquie ak Amérique donte ñoo bokk nekk OTAN bokk na ci itam relation bi am diggante Russie ak Turquie ndax Russie ak Turquie mosuñoo juboo waaye instant yi juboo nañ ndax li tax ñu juboo mooy dañoo bokk noonu mooy Amérique ñu gis ni président bu Turquie dem na Russie jënd fa ay antimissile S 400 te loolu neexul Amérique arrangé wu ko parce que mënta dëppoo ak armement bi nga xam ni waa OTAN dañ koy def kon Turquie itam relation am ak Russie neexul amerique buñ jógee foofu sànq waxoon nañu ni relation économique bi am diggante Russie ak réewu Europe yi egg na ci trois cent milliards de dollars ci réew moo xam ne nii moom mooy Russie dañ ko doon tëkkale ak Espagne ci ñàkk doole doolem yegg ci Europe sukkandiku ci moom ci gaz sukkandiku ci moom ci charbon sukkandiku ci moom ci fer ak acier moom itam muy transférer technologie bu Europe Amérique mu ngi ragal ci biir li muy ragal biir Europe ci boppam dafa am ay réew yoo xam ne nii dañoo commencé fippu ci mbalaanum Amérique ndax Amérique dafa yàgg yilif Europe depuis 1945 bi deuxième guerre mondiale jeexee ba léegi kilifteefu Amérique ci la Europe di dox waaye dañoo seetlu ne 2018 bii passé Emmanuel Macron mii décembre 2018 mu déclaré ni dafa bëgg Europe am seen armée bopp génn ci mbalaanam Amérique ndax dem nañ ba gis ni seen kilifa yi yore armée bu OTAN ndigal yi nga xam ne nii ñu ngi koy jot bu leen président France digaloon duñu def bu leen président Angleterre digaloon duñu def bu leen président Allemagne digaloon duñu def kenn rek la ñuy mooy président Amérique donte ay français lañ wala ay anglais wala ay espagnol kon dafa mel ni France kon euh, ab arméem nekkatul ci loxoom kon France yëgle na yëgle goo xam ne nii indirect la ci ne léegi bëgg naa ber yëfu boppam ak réewu Europe bu bëgg a ànd ak moom loolu indi na ay ñagas-ñagas diggante France ak États-Unis ndax France ci boppam daaw benn accord boo xam ne defoon na ko ak Australie ci jaay ko ay ngànnaay ay sous-marin yàq na ko xañ leen alal ju bari joo xam ne France mënoon na koo jariñoo loolu yépp ngir xeex boo xam ne di am na diggante France ak États-Unis ci côté boobu waaye li nga xam ne moom la Amérique di gën a ragal du France li muy gën a ragal mooy Allemagne ndax jubóo gi nga xam ne am na diggante Allemagne ak Russie te mu feeñ ci jëflante bi ñuy jëflante ci wàllu commerce ak ci wàllu transfert technologie loolu arrangé wut Amérique te ko ne xam na ne Allemagne dañ koo xaajoon mu nekk ñaari Allemagne Allemagne de l'Est ak Allemagne de l'Ouest année 1990 bi Union soviétique daanoo ci lañ boole ñaari Allemagne yi ba bisu tey bi boo demee Allemagne am na ci ñoo xam ne deretu communisme lañ yore comme ni nga xamee ne am na ci ñoo xam ne deretu capitalisme la ñu yore population Allemagne kon am na ci ñoo xam ne bu ñu ni woon tey nañu ànd ak Russie dañ naan waaw États-Unis foofu mu ngi fay ragal ñu daw ba ca kanam réew mi ëpp xam-xam ci Europe ànd ak réew mi ëpp énergie ak koom-koom ci Europe su boobaa kon Europe day génn loxoy Amérique kon stratégie bi Amérique di teg mooy réew yooyu nga xam ne nii moom mooy réewi Europe yi ngi doon ay leader mu tas leen ber France ber Allemagne ber Angleterre Angleterre moom déjà ber nañ ko ndax def na Brexit moom mooy génn na ci Union européenne daaw jeeg waaye Amérique du yam foofu day fexe ba dooleel réewi Europe yi nga xam ne nii mooy Europe de l'Est ay Roumanie ay Bulgarie ay Lituanie ay Estonie Latvie ay poland nga xam ne du ñoon ay réew yoo xam sax di nga leen dégg ñu fexe ba réew yooyu ëpp sañ-sañ France ëpp sañ-sañ itali ëpp sañ-sañ Angleterre ëpp sañ-sañ Belgique ak Allemagne ci biir doxinu Union européenne loolu stratégie bu Amérique la ngir tàqale doole ji nga xam ne ragal na ni juboo guy am diggante Russie ak Allemagne mën na kaa jur kon foofu tamit beneen problème la beneen problème bi nga xam ne Europe daf koo am ci Méditerranée bi la nekk Méditerranée bi bu ñu ko waxee mooy géej gi dox diggante Europe ak Afrique géej googu tey réew yi ko seq mooy réewu itali ci Europe ak réewu grec ak réewu turki bu dee ci côté naar yi ak Liban ak Syrie ak Palestine bu dee ci côté Afrique Algérie ak Tunisie ak Libye réew yi ma lim yépp ñoom ñoo seq Méditerranée bi Méditerranée boobu noonu yàlla dafa dogal li fa nekk ci gaz dafa bari dafa bari trop trop trop tool trop nañu ay jamono benn tubaab daan ni géej gi dañ ko waroon a ngiisal dañ ko waroon a ngiisal suñ ko ngiisalee ba mu fendi te ay pexe woon boobu daf dañ ne woon léegi océan Atlantique bi comme dafa lëkkaloo ak Méditerranée bi nañ ko sakk méditerranée bi bu amatul ndox mu jógee ci océan bi rek méditerranée bi dana sakk dana dana dana fendi su ko dee mu doon suuf ñu man koo jariñoo man koo bay génne gaz bi ci nekk gaz boobu noonu dafa am xëccoo bu bari bu ci nekk jamono yee paase gis nañ libi xeex am na fa ci dëgg-dëgg xeexu libi bi li tax xeexu libi bi am ca dëgg-dëgg moom mooy gaz boobu nga xam ne moom moo nekk ci méditerranée bi guerre bi nga xam ne mooy guerre siri te risi dugaloon ci loxoom ba tax gouvernement ba daanuwut même problème bi la diggante turki ak grec même problème bi la diggante Turquie ak Égypte même problème bi la diggante Turquie ak Israël même problème bi la ndax Méditerranée boobu noonu gaz ba fa nekk Algérie da caa am intérêt mook Russie mais Algérie ak Russie intérêt bi ñu ci am bokkut ak intérêt bi nga xam ne moom la ci tubaab yi am ndax russiens yi ñoom instant yi may wax ak yow ñoom ñooy ñaari ñoom ñooy réew bi ëpp gaz ci àdduna bi ëpp lu ñuy jaay waaye ci biir njaay moomu ñoom Russie dañuy bëgg gaz bi prix bi bañ a wàññeeku dañuy bëgg gaz bi bañ bañ a yomb dañuy bëgg mu cher moo tax bokk na ci stratégie bu Russie mooy bépp réew boo xam ne da ngaa am gaz dafay fexe jëflanteek yow ngir mën laa téye téye sa gaz ngir gaz bi bañ bañ a wàññeeku weer bii nga xam ne moom lañ génn rek président Russie demoon na siri demoon na Iran def fa benn accord diggante gaz prome ak gouvernement bu Iran ngir gaz bi nekk Iran Russie moo koy génne ndax Russie xam na ne bu ci tegee loxoom même bu demoon bay génn itam quantité bay génn prix gaz du wàññi ko Algérie tamit day jaay gaz mooy jaay Europe gaz gaz bi Algérie Maroc lay jaar dugg Espagne moom itam xam na ne Méditerranée bi gaz bi fi nekk bu ñu ko génnee prix gaz day wàññiku moo tax bëggul mu gaaw a génn réewum Turquie moom bëgg na gaz bi génn waaye instant yi bu génnee du ko arrangé parce que bu boobaa moom du ci am dara moo tax il faut mu gouvernement mu dimbali gouvernement libi bi mu bañ a daanu pour fekk gouvernement ba mu fa teg mu nga fa gaz bi kenn du ko génne réew mi Israël nag moom bu sañoon ñu manq ko tey moom ak Égypte ak grec nga gis ni kon ay sédd séddoo ñaari group groupe bu Russie Algérie Turquie ak libi beneen group bi mooy grec Égypte Israël Amérique nag li ko arrangé mooy gaz bi génn Amérique li ko arrangé mooy gaz bi génn su ko dee njëg gi wàññeeku ndax mooy doxal économie moo tax toujours foofu noonu gox boobu noonu ci ci Méditerranée bi xeex dafay am toujours toujours nga dégg fa xeex boo déggul xeex itam da nga dégg ay xëccoo duñ toog année bi ba mu jeex te déggoo fa benn xëccoo wala ñaar kon loolu tamit beneen problème la boo xam ne américains yi jàppal nañ ko russiens yi am na beneen problème mooy problème Corée du Nord réewum Corée du Nord dégg ngeen ko dañoo xeex après deuxième guerre mondiale ñu xaaj ko ñaar Corée du Nord ak Corée du Sud coré du Sud réew mu développé la muy dox seen marchandise mu ngi ñëw fii mais réew Corée du Nord dañ koo tëj communisme la ñuy doxal tey jii bu dee ci wàllu armement tey ñoo ëpp doole Japon bi ñu dendal ñoo ëpp doole coré du Sud bi ñu dendal bokk na ci réew yi nga xam ne ni ñoo gën a menacé Amérique gën a menacé intérêt yu Amérique ci est Asie li tax Amérique nag mënut mënut am li ko neex ci Corée du Nord li may Corée du Nord doole mooy Russie ak Chine kon problème Russie ak Amérique yegg na ba ci Corée di Corée du Nord ñu amaat beneen problème mooy problème mu réewu Venezuela réewu Venezuela mook Amérique ñoo dend tey jii goxu Amérique ñoom ñoo fa ëpp pétrole waaye mën naa ne depuis ñeent fukki at a ngi nii Amérique mënta jariñoo ci seen pétrole ndax ñàkk juboo guñ ñàkk juboo te la tax juboowuñu moom mooy ni Venezuela dafa jige réewum Russie daanaka mën nga ni fi Amérique jaar ak Iran foofu la jaar ak Venezuela mais nag année 2017 2018 dafa am lu ci am li ci am mooy seen président ba nga xam ne moo yoroon réew ma dafa gaañu rakk jël réew ma Hugo Chavez moo yoroon réew ma dal di gaañu Maduro rakk ji jël ko Amérique teg benn plan pour daaneel ko ka nga xam ne moom moo jiite woon assemblée nationale ba États-Unis ngemb ko Brésil jàppale ko ak Colombie waaye ñu gis ni boobu ba léegi Maduro daanuwut te li tax daanuwut mooy Russie moo ci jàpp daaw jéeg rek russiens yi yóbbu nañ fi ay avion or bi ñu dencoon yépp russiens yi def ko ci seen avion yóbbu dem jaayal leen ko indi leen xaalis bi te li tax mooy dañoo toog ba réew mu amatul xaalis parce que dañ leen a embargo loolu naqari Amérique lool sax trop kon foofu tamit problème la beneen problème bi ci des mooy problème mu Arabie Saoudi réewum arabi Saoudi buur bi nga xam ne moom mooy benn Salman bi muy doog a toog dem na def fa benn ziar ziar boobu li ko taxoon a jóg moom mooy dañoo am mbootaay gi ñuy tuddee OPEC OPEC mooy réew yi nga xam ne ñoom ñooy jaay pétrole. am li ñuy tuddee OPEC plus wala OPEC plus mooy réew yi nga xam ne bokkuñ ca mbootaay ga waaye mën nañoo jëflante ak mbootaay gi Russie ci la bokk États-Unis depuis 2011 ba léegi. saa yoo xamee ne ni bëgg nañoo néewal doole réewum Russie dañuy fexe ba Arabie Saoudi wàññi prix pétrole bi loolu am na 2011 am na 2012 am na 2014 am na 2016 am na 2018 bi passé 2018 bi passé nag moo ci gën a bon ndax 2018 passé pétrole bi dafa wàññi ko wàññi ko wàññi ko ba mujj ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay pétrole dañ lay fay pour nga jënd bato yi daan jaay pétrole dañuy mujj ñoo lay fay pour nga pour nga jënd seen pétrole masalan da gis bato boo xam day yore pétrole am indi ko ba ndakaaru waa ndakaaru soxlawuñu ndax yoruñu lañu ko jënde léegi moom pare na pour fay waa ndakaaru ngir ut fu leen ko sottil yóbbu xottu batom ndax xottu gi la soxla kon bari lu pétrole demoon na ba egg 16 dollars jóge ci 120 dollars wàcc ba 16 dollars te li ko jëlee ci 120 dollars wàcce ko ba 16 dollars mooy Amérique moom moo doon xëccoo ak Russie wax Arabie saoudi na wàññi prix pétrole bi ngir Russie bu jaayee perte ngir risi bu jaayee perte Arabie saoudi wàññi ko ba mujj Russie mënatut a jaay ndax bu jaayee perte loolu 2018 la waaye russiens yi tamit fexe nañ ba récupéré waat Arabie saoudi ndax ni ñu récupéré waatee Arabie saoudi mooy daaw jéeg bi problème Arabie saoudi amee ci Jamal Khashoggi dañuy gis ni réewi tubaab yépp dañoo mere prince bu Arabie Saoudi réewi Russie rek ñoo ànd ak ñoom loolu moom moo tax président Amérique bi mu demee Arabie Saoudi fan yi paase ngir bëgg la xewoon 2018 xewaat saoudien yi dañoo lànk duñu wàññi prix pétrole bi mukk te waxtaatu nuñ ak Russie beneen bi ci des mooy arabi Saoudi tamit dañoo am lu leen naqari ci Amérique parce que li daroon turkiyen yi ci seen ngànnaay dafa dal Arabie Saoudite ci Yemen ndax Arabie Saoudite dañoo intervenir ci Yemen 2014 bu bisu tey bi mënuñoo gañ a xeex ba li tax mënuñoo gañ a xeex ba mooy ngànnaayu Amérique la ñuy jëfandikoo te ngànnaayu Amérique yooyu pour nga jot ci yoon wi day gudd boo ci jotee itam ci ay conditions nga koy mën a jëfandikoo soo ko jëfandikoo ci condition yu bokkut ak yi leen arrangé duñ la joxaat dem nañ ba seeni munition jeex ñu gis ni saw yaman yi sax waaye yaman sax dañoo commencé di sànni ay bomb biir Arabie Saoudite ay missile fu mel ne Aramco taal nañ ko te pourtant Aramco de benn système anti missile bu Amérique moo fa nekk bu ñuy wax saat mënoon naa bañ a am loolu mais am na kon saoudien yi dem nañ ba gis ni mënatuñoo sukkandiku ci ci Amérique ci wàllu arme surtout bu fekkee dañoo dend ak réew yoo xam ne nii tiit nañu ci ni problème dana am seen diggante muy Iran kon ba tey Amérique amaat na problème digganteem ak Russie ci lu aju ci wàllu Arabie saoudi beneen problème bi ci mujj mooy problème Afghanistan problème Afghanistan euh, russiens yi impliqué wuñ ci directement mais seen loxo génn ci ndax ñoom russiens yi ñoo njëkk yilif Afghanistan ay années quatre-vingt américains yi di dimbali taliban yi di dimbali euh, na mu tuddati yi euh, taliban yi bañ jëlee fa Union soviétique ñu dem ñoom Amérique ñu des fa ak ñoom xeex bi continuer biñ demee ba année 2001 problème 11 septembre am Amérique daan ni ñetti noonu la am mooy Irak ak Corée du Nord ak Pakistan ak Afghanistan bombardé Irak bombardé Afghanistan yemul ci loolu Afghanistan ñu dugg fa OTAN dugg fa 2003 ba 2021 ñu mujj génn réaliser wuñ fa dara ñu gis ni la may doole af euh, taliban yi ñu mën fa toog ñaar fukki at américains yi di leen xeex mëna luñ leen dara kooku loxo yi Russie la ak loxoy Chine kon boobu itam Amérique daf koy jàppal risi kon bu ñu xoolee kon réew yooyu noonu muy réewum Syrie di réewum Turquie di réewum Iran di réewum Algérie di Venezuela di kore di Allemagne foofu yépp ay jafe-jafe la yoo xam ne nii Amérique ak Russie ñoo ko seq danañ fi dellu siwaat ndax loolu benn sabab la rek ci li waral guerre bi benn sabab la beneen sabab bi ci des mooy Chine réewum Chine waxoon naa leen sànq ni leen ñoom ñooy ñaareelu réew bi ëpp doole ci wàllu àdduna bi ci économie ndax seen PIB mu ngi quatorze mille milliards topp ci Amérique bi nga xam ne vingt et un mille la ba pare itam croissance économique bi dafay yokk daa ndax daanaka chaque année day ëpp 6 pour cent seeni bor tamit bariwut ndax seeni bor yëpp 2000 milliards la Chine moomu noonu dañoo am benn projet bu doy waar doy waar doy waar boo xam ne Amérique du seetaan mukk mu jàll dafa am lu ñuy tuddee route de soie route de soie ca jamono yu yàgg ya ñett ñetti junni at ci gannaaw chinois yi dañ daan jëflanteeg Europe ak Afrique ci wàllu commerce jamono yooyu ay gëléem ak fas ak kenn xamul lañ daan dem ak dikk ñu tuddee ko tariqul xariir parce que sooy bi lañ daan jële Chine di ko yóbbu Europe di jële Europe di indi chinois yi 19 chinois yi depuis année 2000 ba léegi dañoo xalaat ni dañuy dekkal yoon woowu dekkal gi nag nii lay deme dañoo bëgg a defar ay autoroute ay autoroute yoo xam ne nii nii lay demee dana am benn autoroute boo xam ne Chine lay jóge ba ërop ba Allemagne benn autoroute bu mag boo xam ne dafay jóge Chine ba almaañ autoroute boobu dana jóge dana dana génn dana dugg biir Chine ba génn nga xam ni lu mat ñaar fukki région ci Chine danañ ci bokk mu dugg Russie dugg Kazakhstan dugg Azerbaïdjan ñëw Turquie su génnee Turquie soog a dugg biir Europe su duggee biir urop dana dem ba Allemagne autoroute boobu nii lay deme yoonu tali oto lay doon ak yoonu saxaar ak lii ñu internet ak lii ñu internet su ko defee réew yi nga xam ne ñoo ciy bokk gagnant gagnant lay doon réew mi nga xam ne nii tey day bokk ci autoroute boobu autoroute bi day jaar ci biir réewam jàll su ko defee ñu defaral ko ci dëkk yam bëgg ay port sec maanaam port yoo xam ne port yu suuf la bu saxaar gi ñëwee wàcce conteneur yi jël conteneur yi bu camion ñëwee wàcce conteneur jël conteneur lépp loo xam ne nii chinois yi defar nañ ko bëgg koo jaayee Europe ci autoroute boobu lay jaar dem Europe lépp lu Europe defar bëgg koo yóbbu Chine jaayee ko fa lay jaar réew yi nga xam ne ñoo dox ci diggante bi tamit seen commerce da ciy dox diggante réew ak morom ma ligne internet bi tamit ligne internet bu am doole lay doon boo xam ne cinquième génération lay doon nga xam ne tey ñu ngi ci G4 quatrième génération bi nga xam ne tey boo doon télécharger ab théâtre théâtre bi dana jël une minute bële tey boo doon télé télécharger ab théâtre théâtre bi li muy jël du mat ab seconde ci gaawaay route boobu commencé nañ ko dem na ba Turquie réew Ukraine gii tey fa la route ba waroon a dugg pour jàll pour dem Allemagne atum 2021 bii rek commerce bi nga xam ne nii def nañ ko ci route de soie mat na 300 milliards de dollars ci xaalis diggante réew yi nga xam ne ñoo ko seq ak Chine ci commerce ñu am projet tamit route boobu dafay continuer am beneen boo xam ne day jóge Chine jaar Népal jaar Inde dugg Pakistan ñëw Iran ñëw Dubai ñëw Arabie Saoudi xalaat ba tey bu jógee Tanzanie jaar Djibouti jaar Soudan dugg Tchad duggu euh, nu mu tuddati dugg euh, Niger duggu Mali ñëw senegal ñu ngi ciy xalaat itam beneen projet boo xam ne nii océan Pacifique bi lay bëtt ci suufu géej gi ngir génn si Chili ca Amérique latine léegi nag américains yi ñoom yàlla dogal na yilif nañ géej yëpp yilif nañ jaww jëpp waaye lii ma mënuñ ci dara mënuñ ci dara ndax tey jii commerce àdduna bi yëpp bato yi ñoo koy def imagineel nga xëy tey lépp lu bato doon def tey saxaar yi def nañ ko parce que yoonu suuf la bi ci gën a garaaw nag mooy lii ñu internet bi ndax lii ñu internet boobu tey bu fekkee tey euh, nu mu tuddee Chine fexe nañ ba def câblage àdduna bi yëpp ak seen liiñu connexion internet moom mooy ne information àdduna bi yëpp seen loxo lay nekk loolu noonu problème boobu 2016 ba léegi xëccoo am na ci diggante Amérique ak Chine ndax dem nañ 2016 ñu gis ni G5 bi mooy cinquième génération bi am na ay réewi Europe yoo xam ne sax adhéré woon nañ ci France ci la bokkoon France juba woon nañ ak Chine pour ñu développer leen seen seen G bi G4 yóbbu ko G5 Angleterre noonu Belgique noonu waaye Amérique moo ci dugal loxoom ngir ñu mën a deltu gannaaw parce que Amérique nee na leen chinois yi li ñu bëgg moom mooy fexe ba seen information yëpp ñu jël ko ndax booba itam américains yi dañoo gis ni ci seen capitalu Amérique chinois yi dañoo ñëw ni leen dañ leen a bëgg a defaral benn euh, jardin bu rafet jardin boo xam ne nii day ànd ak benn benn genre château boo xam ne comme seen euh, château chinois yooyu lay doon pour taaral capital bi américains yi ni leen bismillah ñu ne nag léegi ciment bañ koy defaree ak suuf saak matériel yëpp Chine lañ koy jëlee Amérique ni leen bismillah bañ ko defaree ba pare américains yi ndekete ñu seetlu ni maanaam euh, capitalu Amérique yëpp information yi château bi da koy fay daf koy daf koy daf koy récupérer kon ñu gis ni américains yi kon tiit nañu ci ni chinois yi yilifee économique àdduna bi yokk yokk gi moom mooy bu fekkee route de soie boobu jàll na ndax instant yi may wax ak yow am nañu cent vingt six pays yoo xam ne ni adhéré wu nañ ci téeméeri réew ak ñaar fukk ak juróom-benn yoo xam ne ni d'accord nañu pour Chine ñëw tabaxal leen ñu bokk ci réseau boobu am na ci ay réew yi Afrique am na ci ay réew yi am na ci ay réew yi asiatique am na ci ay réew yi Amérique latine te Chine mu ngi ciy dox ndax nee la sànq lu ëpp 300 milliards de dollars génn na ko ci année bi kon américains yi ñaari solution la ñu teg solution bu njëkk bi mooy ñetti solution la ñuy teg solution bu njëkk bi mooy réew yi nga xam ne nii adhéré woon nañ ci route de soie boobu noonu réew bu ci mën a retiré wu am jàmm réew bu ci mënta retiré wu ñu créé la xeex ba dootoo ko talati loolu xeex Ukraine bi loolu day dugg foofu am na ci réew yoo xam ne ay coup am na fa réew bu mel ni Kazakhstan ak Ouzbékistan coup d'état am na fa daaw russiens yi ñoo ci dugalaat seen loxo ngir coup d'état ba bañ a jàll réewu Pakistan depuis trois mois def nañ coup d'état ndax daaneel nañ président ba fa nekk teg fa kaneen te lool loxoy Amérique moo ci dugg ngir route de soie bi bañ a jàll. problème mu Éthiopie ngeen di dégg ci saddu naxda day dugg foofu problème mu Mali bii ngeen di dégg day dugg foofu. Amérique kon bépp réew boo xam ne nii pare nga pour retirer wu ci route de soie boobu. retiré wu ci chinois yi ñëw di la installer cinquième génération mën nañ laa bàyyi waaye bépp réew boo xam ne nii da ngaa lànk danañ la créer problème loolu benn jéego la. beneen jéego bi Amérique def mooy dafa am benn société bu nekk Amérique bu ñuy wax Tesla ku ñuy wax Elon Musk yor ko société boobu li ñu wax mooy dañoo bëgg a def lu tolloog quarante mille satellites ci kaw ci kaw suuf si quarante mille satellites nga xam ne àdduna bi yëpp dañuy am internet su ko defee léegi kenn du soxlaati. Euh, connexion bu chinois bi nga xam ne dañ koy câble ci biir suuf si nga xam ne déjà chaque année rek fii ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yéegal ci ay satellite lu toll juróomi téeméeri satellite par at ngir bëgg balaa fii ak l'an 2030 40 mille satellites yi wër wër kaw suuf si ba nit ñi dootuñu soxlaate laati chinois yi dara kon loolu tamit beneen xeex la boo xam ne Amérique mu ngi koy def ñetteelu xeex bi Amérique di def itam moom mooy fexe ba réew yu may yi nga xam ne nii ñu ngi jëflante ak Chine ci wàllu communication premièrement américains yi danañ xeex société chinois yi nga xam ne nii ñoom ñooy yore technologie boobu lu mel ni Huawei waaye danañ fexe ba réew yooyu tamit seen relation ak chinois yi ñagas loolu moom mooy feeñ ci relation diggante Chine ak Australie mooy feeñ ci diggante relation Chine ak Japon mooy feeñ ci diggante relation Chine ak Inde mooy Amérique mooy dox pour relation yi ñagas ngir ñoom ñu bañ a dugg ci réseau boobu kon itam dafa mel ni Chine itam problème mu la Chine itam problème mu Amérique la léegi buñ xoolee itam dañuy gis nii biir Amérique itam dañoo am ay jafe-jafe en tant que Amérique jafe-jafe yoo xam ne ni jàpp nañ ni ay xeex bitim réew moo leen ko mën a régleel premier problème bi Amérique njëkk a am ci biir réew ma mooy réewum Amérique ci boppam dañoo jubootul biir Amérique dañoo jubootul ndax Amérique bi ñu koy doog sos anglo-saxon yi ñoo fa ëppoon mooy nit ñu weex ñi nga xam ne ñu jógee Angleterre ay Irlande ay Norvège ay Allemagne ak yu demee noonu ñoo fa ëppoon mais léegi biir Amérique dañuy gis ni. ñi ñi tuddee mu la wonin mooy ñi nga xam ne nii ñu weexuñu ñoo fa ëpp muy diggante nit ñu ñuul ñeek latin yeeg indo yeeg yu demee noonu loolu dafay feeñ bay feeñ ci seeni élection yi nga xam ne moom la ñuy def chaque année ndax élection yi nga xam ne moom lañ def ci at mi passé mooy deux mille vingt vingt et un bii deux mille vingt bii dañuy gis ni ñi ànd ak Donald Trump ñëpp mooy ñu weex ñi ñi ànd ak Joe Biden ñëpp moom mooy ñu ci des kee ba muy fal gouvernement am da caa feeñ kii bi muy fal gouvernement am tamit da caa feeñ ndax yaa xam naa instant yi boo demee Amérique ministre de défense bi ku ñuul la ki nga xam ne tamit moom mooy vice président bi ku ñuul la te loolu daawul am kon biir Amérique ab xëccoo am na ko xëccoo boobu nag dafa jëm ci ñaari côté benn côté bi moom mooy ñi nga xam ne dañoo gis ne Amérique bu bëggee yanu àdduna bi di ko lijjanti moom Amérique mooy daanu ak ñi nga xam ne dañoo gis ni Amérique mënta ñàkk lijjante àdduna bi parce que loolu moom mooy jëmmal ak kilifteefam loolu mooy jëmmal ak kilifteefam Donald Trump bokk na ci ñi nga xam ne ñoom dañoo gis ni Amérique yoonam newul ci problème àdduna bi na dem àdduna bi dem su ko dee ñoom ñu régler seen bopp mooy li mu doon wax Amérique the first yàlla dogal na élection ñëw na daanu na kii jël na mais kii itam daanaka fii ne bu élection ñëwaatee day daanu parce que dafa mel ni gars yi nammaat nañ kële kon biir Amérique ñàkk juboo am na fa beneen bi mooy Amérique am na problème économie problème économie bi li ci jiitu mooy li ma leen waxoon sànq mooy bor yi réew moo xam ne nii trente mille milliards nga am ci ay bor lool kenn amu ko ci àdduna bi tey it amut fu mu ko mën a fayee mënu koo fay Amérique mënta fay bor yooyu loolu tax na ñu am inflation inflation bi yaakaar naa ren ci mois bi passé rek mois de juin bi rek egg na 8 pour cent prix marchandise yëpp yokk na dollar bi tamit am na problème dollar bi lañu mujj moom mooy dañoo fexe intérêt taux d'intérêt yi ñu yokk ko yokk nañ ko ba zéro virgule soixante-quinze pour cent ngir lan ngir fexe nit ñi di leb si xaalis intérêt yi yokk su ko defee bu nit ñi dee leb si xaalis dollar bi day laa raar su ko defee bu raaree valeur bi day daal di yokk te loolu am na ndax dañuy gis ni ci mois de juillet bi jàpp mois de août euro bi dafa daanu dollar bi yéeg mu dem ba valeur dollar ëpp valeur Europe loolu yëpp dafay wane ne kon Amérique am nañ ay jafe-jafe ci wàllu économique yoo xam ne nii ñu ngi koy jéema a ci seet naka la ñuy def ba mën a valoriser waat seen ab xaalis te mooy dollar bi. beneen problème bi Amérique am mooy Amérique alal ji muy fere ci défense dafa bari ci wàllu ngànnaay tey Amérique daanaka egg na 1000 milliards de dollars ñoo fi ëpp lu ñuy fere ci wàllu ngànnaay ngànnaay yooyu nag. bokk na ci li nga xam ne nii moom mooy indi ay rëq-rëq ci seen financement ci wàllu économie niñ koy remplacer itam toujours moom mooy dugg ci ay xeex ndax xeex yooyu toujours day génne génnewaat xaalis fépp foo xam ne jafal nga fa ab guerre rek ña seet xeex ba kenn ku ne da ngay uti ngànnaay uti ngànnaay googu mooy da ngay jënd booy jënd kan moo lay jaay Amérique Amérique moo lay jaay loolu feeñ na ci problème Ukraine bi daanaka lu jege quarante mill mill quarante milliards de dollars defar guñ nañ ko ci Ukraine jàpp cinquante milliards euh, na mu tuddati tamit euh, Taïwan itam am na lim buñ fa dugal waxaguñ ko kon dañuy gis ni kon am nañ fi ñetti tomb tomb bu njëkk bi moom mooy Russie yokk ki nga xam ne ni ñu ngi koy yokk seen doole mu ngi feeñ Chine yokk gi ñu yokk seen deele mu ngi feeñ Europe euh, Europe ñoom itam ñàkk a juboo ak ñàkk ànd ak ñàkk moom seen gopp bopp gi ñuy dund mu ngi feeñ waaye Amérique itam problème économique ak politique bi nga xam ne mu ngi dund mu ngi feeñ loolu yépp nag dafa daje ci biir guerru Ukraine bi guerre bi li tax ñuy guerre mooy Amérique ci boppam ñoom ñoo jàpp ne jot na ñu wàññi dooley Russie jot na ñu wàññi dooley Chine nañu mën a wàññee doole Russie mooy dugal russiens yi ci ab guerre guerre boo xam ne nii dafay jël ay at yu bari ci ñoom lu ñu am ci alal def ko ci te duñu gañ loolu bu ñu ko defee russiens yi seen doole dina wàññi ko dootuñu talati Irak astaghfirullah dootuñu talati Iran dootuñu talati Syrie dootuñu talati Libye dootuñu talati Corée du Nord dootuñu talati kenn seen bopp lañuy ñuy tal chinois yi tamit loolu lañu bëgg ci ñoom dugal leen ci ab guerre guerre boobu ñu ngi koy tànt ci ay anam yu bari guerre bi ñu bëgg a dugal chinois yi ñu ngi koy tànt ci anam yu bari ñu ngi koy tànte ci Taïwan waaye ñu ngi koy tànte ci Australie ñu ngi koy tànte ci réewu Inde ñu ngi koy tànte ci réewu Japon réew yépp ñu ngi ciy tànte bépp réew boo xam ne jàpp nañ ne danga mën a xeex ak Chine danañ la ci dugal ngir Chine itam dootul amati benn yitte bu doy bu lu ma amati def ko ci guerre boobu bu ko xeexee fukki at ak juróom ñaar fukki at su boobaa daal di néew doole. Amérique loolu moom mooy programme am yi nag dañoo dem ba mënuñoo ñàkk dugg ci guerre bi ndax ni ma la mën a misaalee guerre bi diggante Russie ak Ukraine rek mooy guerre bi commencé wut deux mille vingt vingt deux guerre bi mu ngi commencé deux mille douze mille douze la guerre bi commencé ndax. bi nga xamee ne nii Union soviétique daanu na dafa am benn ba accord boo xam ne nii Russiens yi dañ ko signé woon ak OTAN moom mooy ne OTAN mooy coalition boobu nga xam ne moom moom la réewi tubaab bi seq ci wàllu défense te Amérique jiite ko réew yi nga xam ne ñoo bokkoon ci Union soviétique te sës ci Russie ñu bañ leen a boole ci coalition boobu waaye dañoo dem ba mu yàgg américains yi respecté wuñu accord boobu di jël réew yooyu benn par benn di leen dugal ci coalition bi nag. duggam ci coalition bi dafa wóorut ndax bu xasee dugg ci coalition bi premièrement armée Amérique dana fa nekk te dana jige Russiens yi jige goo xam ne ni tey bu ñu sànni woon ab missile 6 minutes lay am agsi 6 minutes juróom benn minute lay am yàq lu mu bëgg a yàq biir Russie loolu Russiens yi dañu ko seetaan moo tax Russiens yi 2012 ñu daal di jël ay gox ci réew réewum Ukraine boole ko ci seen réew ngir mën a garanti seeni frontière tubaab yi tamit fayu tubaab bi ni ñu fayoo mooy bi ñu demee ba 2014 gouvernement bi ne woon Écranie te juboo woon ak russiens yi ñu daaneel gouvernement boobu samp fa beneen guvernement boo xam ne nii ñoom lay déggal ñoom tubaab yi gouvernement boobu moom la waa jii nga xam ne moom mooy Zelensky jiite tubaab bi nag foofu lañ commencé di def ay provocation ndax réew dana ne du ma bëgg a xeex mais dana dem ba du mën a ñàkk xeex ndax russiens yi fi ñu demee ba nga xamee ne nii mënuñoo ñàkk xeex mooy bi ñu demee ba gis ni Iran léegi ñu ngi dugg ci jéem am arme atomique wala bomb atomique te mën nañ koo am parce que Tchernobyl fa la nekk am nañ expérience bi russiens yi dem ba xam ne bu ñu toogee diir bu gàtt rek at wala at ak lu topp boo moytuwul ñii dootuñ dootuñu ñu leen mënal ci dara ci lañ leen songee song googu lan moo ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy fexe ba ngànnaay yi Iran yore te mën a yàqal réewum Russie jóge fa tubaab yi tamit profité woo ci te yokk ngànnaay yi saa su nekk ngir Russie yi continuer ci xeex bi moo tax xeex bi yàgg boobu ak léegi xëy na Russiens yi tamit ñoom stratégie xeex bi yàgg dérangé wu leen ndax li tax dérangé wu leen mooy ñoom gis nañ ni xeex bi yàggaay bi bon na ci côté mais baax na ci côté ndax côté bi mu baaxee mooy dana néewal doole Russie mais dana néewal doole yeneen réewu Europe yi nga xam ne nii tey dañ doon xeex Russie te effet bi mu ngi commencé feeñ réewu Europe yi bari fi ne découragé nañ ci xeex bi parce que yëg nañ ni seen économie mu ngi commencé yëngatu am na ci ay réew yoo xam sax gouvernement yi daanu na réew réewu Angleterre gouvernement bi daanu na bu yàggut réewum Italie gouvernement ba daanu na bu yàggut Taïwan itam même projet boobu la fa Amérique am te dana ko yeggale mu gaaw mu yéex Chine ak Taïwan danañ xeex parce que Amérique mooy def lu tax Chine dootul mën a tee muñ dugg fa xeex li may tëjee nag mooy relation bi nga xam ne moom moo am diggante Algérie ak Russie te mu egsi ba ci Mali relation bu Sénégal war a bàyyee xel la ndax li tax Sénégal war ko bàyyee xel mooy Algérie dafa jigée ñoo lool ak moritani xam ngeen ne Algérie ak Mauritanie dañoo yàgg ànd di xeex réewu Maroc loolu moom moo indi juboo gi am diggante Maroc ak senegal loolu moo indi loo moo indi itam Mauritanie jël loxoom dugal ko ci Gàmbi nga xam naa yaay jàmmi bi mu nekkee Gàmbi bokk na ci li ko li tax li tax mu mucc président Mauritanie Polisario benn gox la boo xam ne dafa nekk ci Maroc benn région bu bëgg moom boppam région boobu noonu réewu Algérie ak réewu Mauritanie ñoom ñooy jàppale Polisario Espagne di leen jàppale parce que Espagne moo yilifoon gox boobu mais ci biir géopolitique bi nga xamee ne guerre Ukraine bi am na tubaab yi gis nañ ni soxla nañu gaz te gazu Algérie lañ soxla léegi ñaar lañ mënal Algérie Algérie doon na réew moo xam ne tey fipp nañu ba pare génn nañ ci loxoy France France mënatul ci ñoom dara ndax yaakaar naa matagul sax une semaine nee nañ léegi làkk français bi sax dañ koy far bàyyi. Euh, Mali tamit dugg na ci yoon woowu Mali tamit fan yi seen débat moom mooy est-ce que duñ commencé jàngale làkku bambara. ñu gis ni géopolitique bi mu ngi changé parce que changement bi mooy Espagne ak muritani ak Algérie ñoo àndoon di xeex Maroc. léegi nag jubóo di ko am na diggante France ak Algérie Espagne daat fay jaare daal di jubóo di ko ak Algérie daal di ñëw juboo ak Maroc Israël daat ci dugal loxoom Mauritanie dafa am gaz gaz boobu ñaar a fi mën a nekk nga ànd ak groupe bi nga xam ne dañuy bëgg gaz bi génn nga jaay ko am li ngay am ak groupe bi nga xam ne dañuy bëgg gaz bi des fi ngir mu bañ a prix bi bañ a wàññi projet yooyu nga xam ne moom la Chine am itam mooy projet route de soie dafa am ay réew yu nekk Afrique yoo xam ne nii réew yooyu dañoo jigee loolu Chine seen relation dafa dëgër réew Algérie ci la bokk réew Algérie ci la bokk réewu Mali bi ci la bokk su ko defee Sénégal dafay am problème ndax Sénégal problème bi muy am dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Sénégal dafa jege France Sénégal dafa jege France te France ak Russie dañuy xëccoo Afrique ndax xëccoo nañ biir Libye ndax ku ne xam na ne Xaddaafi tey france yi ñoo ko rey waaye xeex ba nga xam ne mooy am Libye tey Haftar russiens yi ñoo jàpp ku ne xam na ne Algérie dafa jege woon France waaye Algérie tey génn na ci loxoy France ba ànd naag Russie ah, euh, na mu tuddati Mali bii tamit seen diggante ak Russie dafa yàgg te yoon wi mu jëm nii mooy dafay gën a dëgër moom mooy lu mu gën a dëgër tey feek ñoom ñu ngi gën a jige Russie ñun ñuy gën a jige France moom mooy ni suñu diggante mën naa gën a ñagas kon dafa mel ni xeex bi donte mu nga nekk ba ca Europe waaye dafay feeñ parce que li tax muy feeñ mooy réew yi seen intérêt dafa ràbbaloo ñaareel mooy impact yi dafay sori te réew yi ñu seq itam réew yi intérêt rek lañ bu fekkee diggante Chine ak Europe amagul benn problème diggante Chine ak France amul problème diggante Chine ak Allemagne amul problème waaye dana mës a amee problème parce que Amérique moom mooy créer problème boobu parce que dafa bëgg a isoler réewum Chine. su boobaa su fekkee ñun ñu am relation ak Chine relation bu tax mënuñoo tàqali ko moom xëccoo bi fii la jëm si kon loolu ñun na nañu kon daal liñ bëgg a wax rek mooy xeex bi am na Russie ak Ukraine ñooy xeex. réew réewi tubaab yi ñu ngi jàppale Ukraine Chine ak réew yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tuddee BRICS BRICS mooy pays émergents yi ñoom ñu ngi jàppale euh, na mu tuddati Russie BRICS itam ay réew yu am avenir lañ parce que mooy réew yi nga xam ne bëgg nañoo liggéey ci wàllu économie te duñ sukkandiku ci dollar duñ sukkandiku tamit ci influence wu euh, na mu tuddati monopole fi ñu xeex bi jëmee nag yàllaa ko xam ndax day doog a tàmbali rek te it mëneesu koo moytu benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Einstein daf ni guerre mondiale troisième guerre mondiale de xawma dana am wa wala du am waaye bu fekkee am na quatrième guerre mondiale moom ay xeer dong la ñuy sànnente su fekkee troisième guerre mondiale am na quatrième ba ay xeer dong la ñuy sànnente maanaam troisième moom bu amee dara du fi des ba tax ñuy xeexaat xeex bu jar ñuy boo xam ne da nga mën a jëfandikoo lu weesu ay xeer yu toj àdduna boo xam ne tey Amérique li mu yore ci ngànnaay bari na bari na trop Amérique li mu yore ci ngànnaay bari na temps bi mën a toog di xeex te du sonn bari na ñu koy jàppale bari nañ muy empire boo xam ne dafa yëg ni mu ngi commencé daanu kooku du may kenn jàmm du may kenn jàmm ndax du nangoo daanu waaye nag suñ borom moom mooy moom moo yore sunnaam ci kaw suuf te it sunna soosu dara du ko soppi réew yi nga xam dañoo bëgg a jug itam du yomb ku ci bëgg a jug du yomb ku ci bëgg a jug da nga xeex pour jug parce que itam loolu moom mooy tax nga am li nga bëgg russie li ñu yore ci ngànnaay bari na am na benn bis rek ñu def benn simulation russiens yi yore ay ngànnaay yoo xam ne nii mooy seen sarmat yooyu daanaka ay missile la yoo xam ne nii hypersonique la missile boo xam ne bu jógee russie buy daanu Paris euh, ñaata seconde lañ waxoon xanaa 93 secondes lañ waxoon xaw bu fekkee lancé nañ beneen missile buy daanu Londres cent cent cent cent cent douze secondes lay def pour daanu Londres nga xam ne moom bu ñu ko taalee balaa nga koo gis egg na bu yàgg te bomb atomique yooyu tamit li ñu ciy wax mooy bombe bombe yi ci gën a néew doole laa wax rayon bi tey dëkk bu mu tàkk dana daw téeméeri kilomètres yoo xam ne nii foofu fii ak juróom fukki at kenn du fa dëkk bomb yooyu tey bu fekkee Amérique denc na ci lu ëpp fukki junni Russie denc ci lu ëpp fukki junni chinois yi denc ci lu ëpp ñaari junni indo yi denc ci lu ëpp junni Israël denc ci lu ëpp juróomi téeméer France denc ci lu ëpp juróom benn téeméer bu xeex amee kenn ku ne la nga yor nga génn ko war ko cee def waaw foofu moom waaw isa waqaatil waaqiatu lay doon wala boog ixtarabati saa waaw kon li ñu ñaan yàlla mooy mu yem fii waaw yemagum na fii nag parce que xeex bi ba léegi génnagul cadre boobu mais nag yaakaaruñ ne dana yem fii ndax Amérique ci boppam ay ambition am dafa rëy te dana jafal fépp parce que intérêt rek lay xool waaye nag suñ borom moom moom àdduna moom ku dem ba yaakaar ne yaa ko moom itam dangaa fàtte rek dangaa fàtte waaye yàlla moom àdduna lu nit man yàlla ko mënal lu ko neex loolu moom mooy am bu fekkee yàlla dafa dogal ne àdduna bi dafay tukki jaare ci loxoy nit ñi itam loolooy mën a am waaye li ñuy ñaan yàlla mooy mu musal ñu ay jeex ñu dund ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, waxtaan wi macha allah am na solo lool def naa ko fi teew rek te doon déglu jëriñoo bu baax a baax a baax a baax ci waxtaan bi ñu koy ñaanal rek sunu borom subhanahu wa taala may ko ab wér yokk ko xam-xam ba mu yàgg jëriñ jullit ñi euh, am na suwaal bu mu wax ci biir ci bi muy jeexal mooy mooy laaj boo xamante ne bi ñun ñëpp war nañ koo laaj muy fu ñu guerre bi jëme ndax loolu moo laaj la ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne comme ni mu ko waxee xam-xam yegg na foo xamante ne bii bu guerre bi yeggee fenn fi mën naa métti ci ñëpp te ñun ñëpp gis nañ fee gis nañ ne première guerre mondiale jaar na fi beneen guerre mondiale jaar na fi te guerre yooyu yëpp guerre yooyu yëpp mu ngi doon amee ci biir Europe ña doon xeex ak doon reyante ci commencement ba Europe la woon waaye mujj na génn Europe laal Amérique laal Afrique laal Asie ba mujj ñu koy tuddee guerre mondiale kon geer bi tamit euh, nañu xam ne tamit nañu nañu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yemale ko fii ndax dañoo nekk ci jamono boo xam ne ni mu feeñee ci biir waxtaan bi muy àdduna bu jaxasoo rekk ci gàttal àdduna boo xam ne bu jaxasoo la mooy ñenn ñu fi nekk kenn ku ne ne man maa samay intérêt moom mooy dox ndax jaxasoo bi muy bi ko ustaas leeralee fi yépp nag dara du ci hasard maanaam dara jékki-jékki bu rek am ci noonu rek noonu déedéet daa am nit koo xam ne wala daa am ñoo xamante ne moom dañoo am seeni intérêt bëgg intérêt yokk am ñoo xamante ne bi ne am seen intérêt ne kenn du ko laal comme ni nga ko misaale ci wilaayatul mutahida amérique ya xam nañ ne première guerre mondiale bi mu dooree bi mu jeexee ndax laata laata première guerre mondiale xamul nañ ne koom-koom àdduna bi Europe la nekkoon li ñu tuddee hégémonie àdduna bi ñi ko yore woon moom mooy Europe waaye bi première guerre mondiale jeexee gis nañ ne Europe guerre bi da koo laal iqtisaadiyan wa askariyan wa lépp ñu gis ne Amérique commencé moom di am doole ñu continuer ci doxin boobu di dem ba duggaat ci beneen guerre mondiale ñu génnaat ci Europe la desoon ci moom nag far sax jekkaliku wilaayatul mutahida amérique ñëw taxaw am doole lool waaye boobu nag mu amoon ci kanamam yi tamit ku ñu wax ittihaad soviet yi ni ko usal leerale ci bidaaya ñu nekk ñoom ñaar di jàkkaarloo day mel ne nag comme li ñuy wax taarixu yoon di nafso day mel ne loolu moo xaw a amaat day mel ne wilaayatul mutahida amérique ci mawqif boobu mu nekkoon position boobu mu nekkoon bëggoon koo garde bëgg kenn du taxaw ci kanamam te jamono ittihaad suufi di taxawoon ci kanamam day mel ne tey jii nag loolu mu amaat waaye nag maal asaf tey moom day mel ne du kenn du ñaar du ñett kon day Amérique day bëgg nekk kenn contre ñëpp. mina sheytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di jiital ci nuyoo bi nag sama oustaz sama professeur oustaz Mouhamed Ndiaye di nuyu itam sama xarit bu dee sama mbokk ma lay oustaz Gorika di nuyu mboolem ñu nekk ci daara rek di di jégul nag xam naa yéex a ñëw bi donte ñu ngi ko doon topp ndax tem bi xam naa ne moom faaw ñu mën cee jàng dara doon jàng nañ ci lu bëri bëri nag waaye lu jëm ci guerre bi comme ni Oustaz njaay waxee rek moom àdduna mën na cee tukkee moom waaw loolu moom yóbboo ñëpp xam ko moom guerre bu mën a tukkal àdduna la ndaxte ngàndaay yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñu ko séq yoro mën naa tukkal àdduna guerre bi nag dañoo foog ne diggante Russie la ak Ukraine mais guerre bi diggante Russie la ak Europe parce que bi Ukraine bu dee moom doo nga Russie la bu yëngalu du yëngatu ndax xam na ko moom mais bëgg naa ñu bàyyi xel tam beneen beneen partie ci guerre bi mooy Poutine Poutine dafa am maanaam dafa nekk nit koo xamante ni bii dafa dafay tubaab te tubaab yi maanaam gëm-gëm yi tubaab yi yor da ko yëg da ko gëmut moom dafa gëm réewam gëm waa réewam tubaab yi nag li gëm mooy ay ay ay ay association malfaiteur lañ gëm maanaam groupe bandi moom la réew tubaab yëpp gëm maanaam gëmuñ seen waa réew mais seeni groupe lañ gëm loolu faaw ñu bàyyi xel Poutine nag daf mel noonu moom parce que bu ñu seetloo Poutine bi muy toog ci réew mi bi muy bi muy toog nekk président daanaka ba bëri si ci cermon réew mu ñàkk la woon nga xam ne am na ci waa réew ñoo xam sax mat naan taal di jaaroo te muy pays bi gën a bëri pétrole ak gaz ci àddina bi mais waa réew waa réewam mat lañ naan taal di jaaroo fi nekk loolu amatu fa yi gën a développé ci ci àddina ci la bokk ci wet yépp nag wala armement moom raw nañ yépp kon président boobu am na am na gis-gis bu mu gisee bokkut ak boo xam ne ñii ñu may wax naan groupe bandi yi moom nañu gisee Europe bi yëpp président yi fi nekk yëpp France ñëpp Amérique ak ñun ñëpp nga gis daanaka ñoo réew africain ñooyam maanaam faalewuñ nit ñi nit ñi ci réew yi faalewuñ leen li ñu faale rek mooy groupe bi ñu bokk bëgg ger àdduna bi xob nu ñu bëgg a def noonu ala kulli loolu daal man butin dama ko xoole foofu moo dama wax ne dama kaa xale ne leen guerre bi diggante xisbullaahi la ak xisbu seetaan loolu laa doon wax ne leen nag xisbullaahi mooy Russie Hizbut seetaan mooy mooy Europe ak Ukraine lu tax ma wax loolu mooy soo xoolee Russie li nga xam ne dafay nekk ay jikko yu bon nii yëpp da koy xeex surtout mbiram góor jigéen fi mu ne nanguwu ko fa da koy xeex xeex bu garaaw te Europe dañ koy dañ koy accepté benn beneen bi soo xoolee Russie réew yu bëri ci réew jullit yi da leen dimbale def naa fi ci mujj mooy Mali. boo xoolee ñële toujours dañuy sonal réew jullit ñi kon geer bu amee ci diggante ñaari ñooñu man dama jàpp ne kii dama koy boole ci Hizbullah yi ndax moom mi ngi dimbale jullit ñi mi ngi bokk jullit ñi seen yenn gis-gisi ni ñeen ak moom noonu jullit ñi lañ tey toujours ñu ngi ci bon moo tax ma jàpp ne ñaari man dama jàppoon ne kuy far rek faral ak Russie ñu bëri nag comprendre ñu woon loolu tam li koy wane am na benn dëkk bu tudd dëkk bu tudd sax waa jooju dama demoon màkk te ubbiloon ko ubbi ko euh, kii imtati euh, barab yonte bi mu siyaare ko far turu waay ab xale bu ndaw la nii boo gisee waaye jàmbaarate bokk ci dëkk yooyu bokk di ànd ak si xeex bi boobu bi daa baaxatul kooku noonu euh, xaj dama fàttali ko boo gisee président boobu dëkkam fi de dawla islaamiya la suufiyeen ay tas mutasawwifuun lañ tam boole ci dawla islaamiya dawla tasawuf ay mutasawwifuun lañ fii ne ñoom ñoo rusi ñoo bokk di ci guerre bi nga xam ne boo leen gisee soldats yi dañoo taxaw allahu akbar dañoon lañ noon lañ lañuy bi ñuy dajee pour ànd ci guerre al est-ce que lay fàtte danaa ko danaa fàttaliku xëy na ko waaye loolu bi muy dugg ci guerre bi da gis ne moom dafa dugg ci guerre bi ànd ak Russie te dawla islaamiya la loolu beneen affaire la maanaam defe naa ma lay doon xaddi lay doon waaw oh, Sisaan mu ngoog dawul Sisaan Ahmad Xadirof la tudd Ahmad Xadirof la tudd Sisaan histoire bu grave maanaam digg doq ruq boobu dafay histoire bu doy waar bu am boo xamante ne ñu bëri duñ ko bàyyi xel te jafe-jafe yi at surtout jullit yi jafe-jafe yi dañuy dund yépp mi ngi ñëw ci digg diggante boobu. moo tax bi ma gisee Xadirof ànd ak Russie ñu bëri contre ko nen ab jullit nu muy ànd ak communiste. may wax ne man président àdduna bi yi ma gis nii maanaam moom laa te mas a gis ko tabax jumaa te loolu jullit intégré ko ci biir capital bi Butin la maanaam biir mas ko jumaa ja te gën a rafet moo ko fa tabax ànd ak intégré ko daf naa Erdogan ci la bokkoon at ki nekkoon Palestine Palestine ki jiite fi la waa Palestine kon loolu li muy tekk rek mooy waajul nit la ko xamante ni bi buñ ko xoolee ku gëmut yàlla donte gëmut islaam liñ gëm ñun waaye am na luñ bokk ñoo moom mooy xeex xeex lu bon foofu damaa bëgg ñu xool fi guerre bi beneen bi tam mooy guerre bi boo ko jàngatee dëgg dëgg dëgg dëgg guerre économique la te guerre bi yi koy ko déclenché yahud yi kese la day wax toujours ne ñun jullit ñu war ñu jàngat bu baax yahud yi comprendre leen lan moo tax moo xam ne guerre bi guerre yahud la boo xoolee yahud yi àdduna bépp dañ ko jël yeew ko di manque seen économie di ko moom seen bopp naa waxtaan yi passé waxoon nañ fi ne amul banque bu ñu moomul fi mu nekk lii di xaalis amul kenn ku ci ñemee dugal sa loxo te doo yëhut wala nga am seen accord or bi ak pétrole bi amul kenn ko ñemee jaay te yëhut yi teguñ sa loxo lépp ñoo ko ñoo ko gérer léegi nag comme ni Oustaz jaay waxoon léegi guerre mondiale ba ñu koy nettali lu lu ko waral fi ne naan dafa dafa dóor fii du gune fii yooyu yëpp waralu ko li ko waral mooy yahudi yi ñi ngi woon Europe génn nañu Europe dem Amérique bëgg a seen force Europe yóbbu ko Amérique ñu taal guerre Europe bu bu guerre bi tàkkee ñu financé guerre bi lebal xaalis européens yi moom Europe déplace force bu Amérique noonu la ko def mu jeex tàkk ba tey jii may wax yéen européens ñu ngi fay. Euh, yahud yi xaalis boo xam ne mi ngi boru guerre ba la woon def naa plan Marshall bi ku ne xam na ko ñu jàng histoire taarix taarix salisana yi ñëpp xam nañu ko plan Marshall plan Marshall mu doon xaalis bu ñu may la ak xaalis bu ñu leble pour développer Europe kan moo ne ah yàq Europe Amérique ko yàq parce que bi geer bi tàmbalee Amérique moom mi ngi defar ay ngànnaay Europe mënut defar ngànnaay mu leen di lebal ngànnaay ñuy yàq seen réew bi réew mi yàqoo kon moo ko def moo koy defar am na ko defar ci xaalis ban xaalisam société ban ay société kon boobu beneen problème noonu kon problème boobu mu créel mu créel Amérique mu créel Europe moom la yow di créel Europe problème même problème bi la créel la bëggoon a créel Russie Russie fan yi boo gën xoolee diggante Russie la ak siin def naa ak Inde ak Brésil ak Junub Afrique ñu leen di waaye bu naa si BRICS gis nga ñoom association la boo munasaba la boo xamante ne bi li muy créé bu créé woo au bu bees dañuy créé banque mondiale bees dañ koy créé maanaam banque mondiale bi nga dégg ni muy lebal àdduna bi xaalis dañuy dañuy bëgg a créé ñoom maanaam nooteel gi nga xamante ni moom la yahudi noot àdduna bi dañ cee bëgg a génn loolu nag moo tax ñu noon la loolu moo tax guerre bi nga gisee bi guerre bi tàmbalee rek yahudi commencé dagg relation Russie côté yëpp lay ko dagg maanaam PDF bi PDF xam ngeen PDF. PDS ne leen dootuñu jëfandikoo ak Russie PDS mooy lan ba jëf ñàkk a jëfandikoo Russie am na benn sem système bancaire boo xam ne bi boo bëggee transférer xaalis il faut nga jaarale foofu dañ koo dagg Swift système Swift dañ koo dagg ak domaine yu bëri bëri ñu dagg ko domaine yooyu tax ñu dagg ko te guerre la wàllu sos Russie ci wàllu wàllu football luñ ko wax doo bokk ci banque doo bokk ci coupe du monde mais pour lan loolu est-ce que loolu guerre guerre la nekkutut guerre leneen la kan moo nekk si ginnaaw loolu mooy yahud yi la maanaam façon guerre boobu bi yahud képp moo koy guerre kon guerre bi ñu bàyyi xel baax ne du diggante Russie ak Ukraine mais diggante yahud yi la ak benn benn pôle bu nar a créé te bu ñu woo dañ nang force ci moom beneen partie bi ci wàllu koom-koom bi nag mooy wàllu gaz bi Europe am na ci yoo xamante ni bi 100 pour cent seen gaz mi ngi jóge Russie 60 pour cent ci gaz Russie mi ngi jóg Russie si ci gaz Europe ñu ngi jóg Russie moo tax côté boobu laay wax ne Sénégal fa a amee problème côté boobu nag moo tax ñu taaloon guerre Syrie ba maanaam pétrole boobu ak gaz boobu jóge Russie moo tax taal guerre parce que dañoo bëggoon a xoj Russie mënuñ ko xoj ñu neen taal guerre guerre guerre Syrie yooyu moom ab ab kii bu yàgg-yàgg la ne ak nañ ca wax. waaye beneen problème mooy problème mu gaz bii nii gaz bii nii Sénégal lan la fi am man maa ngi gis ci ay ay ay ay ay taxaarir yu jóge Russie ñaari ka ñaari mbir yu ma jaaxal ci Sénégal ci problème guerre bii benn bi mooy ay ay laboratoire biologique yu américains yi def Sénégal beneen bi mooy ay xale yu dem Russie comme ay comme ay mercenaires ñu rey ñenn ñi ñenn ñi des ñenn ñi des fa ay mercenaires de mercenaires Sénégal yu bokk ci guerre bi ñu rey ñenn ña bàyyi ñenn loolu gis naa ko ci seen ci seen i seeni i seen i kii nii kon dafa mel ni guerre bi Sénégal yi te man dafa ne Sénégal lu mu ci am na ko laaj ne Sénégal ndax bokk ci guerre bi Sénégal lu mu man la lan la mën a bokk bi Mali bi donc Sénégal mënu cee bokk Mali yi ngi ni Sénégal amu benn amu benn was na kon laaj na ndax Sénégal am na lu mu ci wax defu ci lu mu ci wax xanaa moom kay dañ koy utiliser fi nga xamante nag fi la Sénégal di duggee ci guerre bi dëgg dëgg dëgg mooy gaz su Sénégal Sénégal wax na ni fi nekk réew yi ëpp gaz ci àdduna bi ci la bokk te damay wax ne man gaz boobu ngeen dégg noonu boo buñ dox dox du ñu xeeñ am na benn tuyau bu ñuy gas fan yi gis naa publicité bi xam naa xale bu bëgg a liggéey mën mën ko xool ab ñu ngi koy woowee pipeline dañ koy woowee tuyau lee doon boo xam ne bi tuyau bi lay jóge ci boori Nigéria la jóg côté boobu jaar Sénégal jaar na su dul di Maroc dugg Europe tuyau bi li muy transporté mooy gaz maanaam robinet gaz robinet da ngay ubbi rek gaz ba jàll. xam ne kon ñun ñun gars yi ñuul ñii nii boo demee Égypte si nga boo demee Égypte man ba ma fay jàng booba kër yi ni ndox mi amee ci kër yi noonu la gaz amee ci kër yi. da ngay ubbi da ngay ubbi tiwo ga tiwo maanaam tiwo bi ngay ubbi taal gaas gaz da nga jël gaz amul jënd fen amul fenn gaz ni ko amee ni nu amee foofu ci ñoom naa dem ba àgg ci foofu ñun tam au lieu demal ci bitig bu jaay bagage déedéet tiwo robinet robinet yi gaz ci biir kër yi waaye maa ngi def defal benn affaire man la ma jàpp ba jàpp mooy mooy ñi ci am tubaab bi dañ fi jaar jël tiwo bi yóbbu ko Europe te gis nga bés bu si ñàkkee gaasam parce que ñoom bés bu ñu jàllalee gaz Sénégal mu remplace gaz Europe ñu fermer kiwo tiwo Russie te bés bu ñu ferme tiwo Russie ñun dañu am problème mbaa Europe dañu am problème maanaam guerre mondiale moom faaw mu tàkk mu tàkk parce que Russie am na doole du nangu kenn ko xoj ku ko bëgg a xoj ñëppay dee su nga gisee Europe jëluñ benn armée pour dugg Russie xam nañ ne loolu guerre mondiale Poutine da ko wax mu leer nañ la ko wax. ku ci dugg rek man damay déclenché may armée la wax moom nëbbu ko sax moom ku ci dugg damay rek déclenché may te waxoon na Ndiaye wax na ko léegi am na am nañu armée yoo xamante ni ay missiles yoo xamante ni bi amul benn benn radar boo ko mën a arrêté ndax diggante mook ak New York wax nañu ay 13 minutes lay daw 13 minutes te ville spéciale lay lay détruire ci ay secondes ab dëkk boo xam dëkk Europe yi dëkk yu ma am Washington ak <laughs> dëkk yooyu ay secondes la koy détruire. te amul lenn lu ko mën a arrêté moo tax maa ngi leen di ñaan daal ñi nga xam ñoo bëgg comprendre dara àdduna liy xew nañ concentré ci ci diggante boobu parce que problème boobu dafay tël àdduna bi daal maa ngi jéglu ci ci ci ci wax ji xam naa ne nosuwut te bëri na te Oustaz wax na lépp ñoo ngi leen siyaar leen yu baax a baax